aussi maa ngi interpellé di alerte ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk politiciens yi nañu bàyyi xale yi nga xam ni ñoom la ñuy jal ci kaw ay leader politique ay kilifa diine ñuy saaga askan bi loolu nag ki ma siy njëkk a alerter mooy Ousmane Sonko sama xarit la waaye na bàyyi ñi nga xam ni ñooy ànd ak moom di saaga nit ñi loolu jaarawul nit boo ànd moom danga koy jox cër ndaw loo man ku ne xam na ne ba nga xamante ni mooy am na ay jafe-jafe maay ki njëkk jug ànd ak moom dagg sama voyage jóge Istanbul wàcc aéroport dem këram combat bi déclassé ñu nangu samay kër tëj sama entreprise ngir moom ma muñ ko ngir xeex démocratie ak li nga xamal la ko doon def kon tey bu ma demee ba nga xamante nii situation bi ñëw na kenn ku nekk am sa liberté na nga ex sa liberté waaye nañu bàyyi saaga yi ak wax yu ñaaw man saxaar laa maa ngi ci kaw raay bi Serigne Touba mooy sama gaar ku faj jaar ci kaw raay bi naa la fiir jàll man nii Ousmane Sonko nii Abdoulaye Wade nii Macky Sall man Serigne Touba laa gëm mooy sama wóoru waat kum si man di doon li ma ñor mooy Sénégal ak askan kon loolu bëgg naa aussi ñoom ñu xam ko